On commencé remercier d'abord d'abord, personnel hôpital l'hôpital Mbargane frère notre frère Mamgour et euh, l'association association club yi ñu décidé d'organiser affaire journée bi collecte pour faire une contribution au centre national de Transition sanguine parce que deret dafa manqué Le Covid 19 a commencé ba avons démontré ñi dematuñ banque de sang est may Nous avons motivé, ñu motiver ñun ñu organiser journée collecte de sang avec nos partenaires, nos suñu nos suñu partenaires yi yi nekk joxe suñu contribution ci loolu ci mbir mi ci collecte de sang bi waa centre national de transfusion organisé jafe-jafe yooyu ñu am moo ñu poussé ñu organiser journée bi saa yu ñu soxlaa sang dañuy dem ci centre national de transfusion sanguine demandé leen ay poche waaye fi mu ne nii centre national de transfusion sanguine ñàkk amatul poche moo tax ñun pour marquer suñu contribution ci effort boobu ñu collecte bi ñu organiser journée bi pour apporter suñu liggéey ci mbir mi indi ci suñu loxo ànd ak nag suñu frère ami mam Goor qui a beaucoup euh, travaillé sur ça les clubs qui sont tous derrière moi les associations et l'ensemble du personnel de l'hôpital Quand di a ñaax rek ni occasion bu nous ni ñu di saxal population qui de temps en temps ci l'hôpital yi wala centre national de transfusion sanguine di may deret Nous profité également ci nous respectons toujours ñu respecter toujours mesures barrières avons des masques, masque di des vaccination ñu avons inscrit le site ministère de la santé pour vacciner wu di respecter distanciation et ak utiliser solution hydroalcoolique Nous ñu ngi leen ko ñaan bu léegi mbas mi jóge fi